alors comme annoncé en début d'émission tey jii le 22 mai dañuy fàttaliku lu xewoon ci atum 2003 muy faatu euh, Serigne euh, bu Xaadim Bousso euh, ca diwaanu Touba moom nag kilifa diine la nekkoon itam homme d'affaires moom ay élément police ñoom ñoo ko fekkoon këram bàyyeekoo Ndakaaru ndax dafa am lu ñu ko doon toppee moom xaalis bu bëri bu takku ñaari milliards boo xam ne daf ko waroon a fay benn banque ci loolu la dawee sax foofu ca Touba la ko takk der yi fekk foofu ci loolu la faatu loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew yu am 22 mai at yu wutee dellu si. 2000 saxaar bu jóge woon ndakaaru yaboon taalibe ya ngir nag ñu teewee ji màggal bu Touba moo saaraan ba mu yeggee boor yi jam ñaajo lu toll ci fukki nit ak ñett ñàkk nañu ci seen bakken 210 jële ci ay gaañu gaañu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2022 xalif général de Niassène di Cheikh Mouhamadi Mahi Niass di njiitu Union islamique africaine moom naka fexe na ba indi jàmm ci diggante belligérant ya nekk ca Darfour féete sud du Soudan bi mu dellusee fii ci réew mi nag taalibe yi dañu ko dogale ji ca aéroport bu Blaise Diagne teeru ko ba mu yegg këram ca Kaolack ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2018 moom nag ba mu feeñee ci coow li fi jotoon na am ci ñaari baat yooyu nga xam ne moom la fi waxoon muy màkk ak Baaka Idrissa Seck leader bu parti Rewmi moom dafa mujjee jéggalu ci communauté musulman bi teg si nag euh, di leeral rek ni kàddoom yooyu nag mu yëkkati woon mësul wax rek euh, baat boobu di Makka nekkul ci téere alxuraan ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2020 tombe ak faatub waykat boobu bàyyeekoo ca réewu Guinée Mory Kanté ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2017 ab attentat terroriste moo amoon ca stade de Manchester Arena bu waa Manchester mu tombe woon nag ak benn concert bu fa waykat bi di Ariana Grande amaloon ñu taxaw ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2003 moo ne woon a génnub àddina kilifa diine bii di Serigne Khadim Bousso ci waxtu bi nga xamante ni si police daf ko jël si woon këram moom yoon da koo tegoon ab daan nag lu tollu ci ñaari milliards ci suñuy koppar yu mu waroon a fay benn banque ñu dellu si ci affaire boobu nga xam ne lëmbee woon na réew mi jamono jooju ba naroon nag indi benn ñàkk déggoo ci diggante maître Abdoulaye wàdd ak waa Touba. affaire Khadim Bousso suñu koy fàttaliku dañuy fàttaliku fin de cavale euh, d'un détenu particulier euh, muy Khadim Bousso di homme d'affaires di doomu kër dine di kilifa donc boo xamante ne dañ ko jàppoon tëj ko kaso ci contentieux bu ko opposé woon moom ak BICIS ñu accusé woon ko de abus de confiance ak euh, banqueroute organisée tëjoon ko ci mu waroon tëdd kaso ba pare waroon fay banque bi deux milliards ñu transféré woon ko pavillon spéciale bu Aristide la Dantec mu rëccee fa nag un 24 avril daw donc 24 euh, avril ba mais ba dugg juin daanaka l'actualité tournait autour de l'homme d'affaires Khadim Khadim Bousso donc euh, le 22 mai nag bi nu yewoo un jeudi la woon si je me rappelle ñu jot xibaar que ne Khadim Bousso dafa rey boppam si fajar gi ay booru 6h20 mu indi woon nag coow lu tar ci dëkk bi parce que ñenn ñi dañ doon wax ne doomu kër diine la du xaru ndax euh, waa BIP brigade d'intervention polyvalente bi nga xamante ne euh, ci ndigalu dikk ci la demee woon pour jëli ko dañu wax ne ñooñu ñoo ko rey donc mu nekkoon coow entre ndax euh, suicide la wala bavure policière. mu indiwaatoon tamit beneen coow ne Ablaye Wade en tant que président de la République euh, Idrissa Seck sax la njëkkoon wax en tant que premier ministre moo joxe ndogal pour ñu dem jëli ko Idrissa euh, bien plus tard ne en fait du moom Wade joxe woon ndigal gi même bu fekkente ne moom woon na lu ci mënti nekk daal mooy que ne Khadim Bousso rëcc na. après xalif général euh, à l'époque sëñ Saliou moom dafa waxoon ne du denc kenn du làkk kenn donc xaadim euh, bu so nag bi xalif bi waxee loolu après moom ci boppam moo yëglu daal di joxe xibaar que ne moom dellu kaso rey boppam moo ko gënal moo ba tax nag euh, après naatable amul woon ci ne dafa xaru beneen ironie du sort mooy na hôpital Dantec bi mu rëccee woon ca pavillon spécial ba bi mu faatoo fa lañ ko delloo si ndax euh, kooram fa lañ ko autopsier et que ñi ngi jébbalaat koor bi waa këram euh, samedi ba ca topp je crois c'était le vingt cinq mais ay booru 17 heures lañ la koor bi jóge woon morgue hôpital Aristide la Dantec ñun nag ñu toppoon koor bi topp koor bi ba Touba. ñi ngi yegg Touba ay un peu après vingt trois heures wala un peu avant vingt trois heures mais ci lu may fàttaliku ñu xaar lépp mais ci guddi gi lañ ko defar denc ko ndax coow bu doy waar la woon à l'époque Mortala euh, di remercier suñu naataango boobu leen ni mu ko fàttalee xaj na li indi euh, histoire boobu noonu mu xaw a des ci xel bi euh, mooy nit ñi dañ doon naatable ndax dafa xaru wala ndax dañ koo faat ndax hmm. jafe-jafe yooyu mu amoon ba mu jaraloon ko mu rëcc ci pavillon spécial Dantec dem làqatu ji ko foofu ci Touba. waaw defe na Aminata Mohamed Diop nga xam ni moment boobu moo doon responsable. Euh... service euh, société bu le quotidien mhm. euh, lim ci wax leer na nañ mhm. euh, ñu koy gërëm parce que mhm. moom aussi nekkoon na coordonnatrice également quotidien le quotidien bu Madiambal Diagne je pense lim ci wax leer na nañ ñoom demoon nañu ba autopsie bi wane ni dafa xar woon waaye mbir mi ki ci gën a sonn je pense moo doon sa Seck parce que longtemps ñu bëri dañu jàpp ni bavure bi ki ko indi woon mooy Idrissa Seck parce que moo joxoon ordre pour ñu dem euh, jëli kii di euh, Khadim Bousso ba sax euh, ba coow li weesoo Idrissa Seck am na benn waxtaan bu mu jotoon am ak waa Futur Média en 2013 ñëwaat na ci daat ni ci problème bi amoon ci Khadim Bousso ñu bëri dem nañ Touba sax ngir yàq deram boole ko kilifa diine yi moom demoon na sax ba ni euh, am ñu dem ba ni euh, manto bi ko Serigne Mourtada mayoon uh-huh. da ko mayoon Macky sàll te nee na loolu dara amu ci ay waxi kasaw-kasaw la woon lépp pour yàq deram ak euh, la communauté mouride mm. mais c'est souvenir triste pour tout le monde mm-hmm. parce que ñu ci bëri li ñuy fàttaliku mooy drame bi jotoon am parce que bakkan bu rot rek ci yu lu mel nii ci ay xëccoo damay dem kaso duma dem kaso loolu rek euh, ku koy regretter da nga koy regretter mhm. mais euh, c'est un souvenir qu'il faut se rappeler mhm. pour fexe euh, yu mel nii bañ a amaat mhm. euh, ñu koy fàttaliku. c'est ça merci beaucoup Mortale merci Aminata Mouhamed Diop aussi ci témoignage bi léegi dañuy dem xooli ji xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane Diaw.